Baye Mor Fada yore na ñoo ànd ak Serigne Bassirou Baye Mor mooy yëngu kàddu yi bisimilah ñu xaar Serigne Bassirou ñu àggee ci ba noppi. man Baye Mor Fada li ma saa xam ne moom yaay la fa ne yaay la fa ne dama ne ci ndax mi ànd ak Serigne Sakhan kii mooy Abdou Lahad Sène Abdou Lahad Sène

salaamaaleykum wa rahmatulah. ñaanal gën fee yàgg loolu gën a wër tax xam ne mbooloo mii de moo tudd mbooloo Zadul Mousafir Zadul Mousafir Touba Canada waaw Serigne Saliou moo joxe woon tur bi lëkkale woon mboolem daayira yoo xam ne dañoo nekkoon Canada ci njiitul Serigne Bassirou Mbacke mii maanaam kàddu yi sax bu jógee maanaam kàddu cant la yoo xam dafa jëm ci mboolem mu jëm ci jëmmam ndax daf ñoo yombalal liggéey bi lool Mbàkke daf ñu koo yombalal lool tàggat ñu tette ñu tagal ñu ba ba ba ba lu ñu mën lu bari rek ci ci aw fitam moo moo ñu ci fital mbooloo mi fa nekk nag suñu borom dafa dogal sa toogaay wii de nga doon suñ te yàlla na yàgg lool daf leen gën a yokki pas-pas ndax bi ñu déggee seen ndigal li ba tey ci université bii suñu borom day dogal juroom benn weer bu ne dañuy tak suñu addee andi ko bañ ko tambalé ba légui ne murid di génn murid desul gannaaw ñom nak liñ bëgg mbacké moy bokk say ñey xalé di li liggéeyal kété amuñ benn bëgg-bëgg amuñ dara bëgg bëggun dara nga nga nga nga yàgg fi rek lañ bëgg ba ñu ñu ñu di la fi yàgg fekk rek dila la yàgg jox addiya mbacké na nga dund lool murid ñom seen bëgg-bëgg moy moy moy ñu di la jox addiya ak di la gis loo loolu loolu rek bëgg Mbacke waaw bëgguñ dara man sëñ jërëjëf yéen waa Canada ñu ànd ak Serigne Bassirou Baye Mor Ndiaye yëkkati kàddu yi Serigne bi dégg na ko baax a baax mu ngi leen delloo mu ne dégg na kàddu yi bu baax a baax mu ne kàddu soññee rek la mu ne mi ngi leen ci sant di leen ci gërëm bu baax a baax mu ne ci taxawaay bi mu ne xam nañ ko baax yëg nañ ko mu ne gis nañ ko itam mu ne kon mu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax mu ne di gën a soñ suñu bopp mu ne gën a fettal suñu laxasaay fas yéene ko ànd yéen ba faaw rek mu ne jërë ngeen jëf mu ne taxawaay bi dal na xelam lool mu ne bég na ci lool waaye rawatina bi ngeen ànd ak sëriñ Basiru Mbàkke mii nga xam ne at mu jot moom ngeen di jiital topp ci gannaaw neen mi ngi leen di gën a boolee ak moom mu ne li sëñ Tuubaa bëgg lépp mi ngi ci sëñ mi ngi ci sëñ Basiru Mbàkke mii kon ndokk bi ngeen ànd ak moom na ngeen dala seen xel jiital ko topp ci gannaawam lu mu digal ngeen def ko rek sàkku ci sëriñ bi mu ñaanal leen bu leen gis mukk ci lu ñuy tere ñëpp dala seen loxo bismillah amin amin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin amiin Mbacke amiin amiin Mbacke amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin waaye nañ jaar noonu